dal leen ak jàmm mbaadu nguuru Sénégal naka dafa bëgg xañ waa D-Média jàmm ak salaam ahakay ubbil yéenekaay yu bëri xëy nañ wax ci tribune yéenekaay ne borom bi moom mun naa jooy dëju boppam yéenekaay bi ne lu moo yabaate gu ëpp naka nguuru Macky Sall defuñu ko ñu yokk si ne Macky Sall mooy fexe ba jëlee fi groupe D-Média bokk na ci la ñu xëy di xultu ak a naqarlu mooy njuumali moom del toogul ginnaaw état bu Sénégal ñaari milliards lay laaj te monte ab njëggal naka ci wàllum fiscal jëm ci këru tasukaay xibaar yi amoon na yéenekaay bi ne sos tapale ak jaay doole képp lañu fi nekkee 24 heures yéenekaay ak mbiru bugaan Gueye dani état bu Sénégal nag poñe na te sax nag mën naa faa jaare xëm ñàdd ndax mbooleem compte bancaire nag tëj nañu ko ràpp Bougane Gueye dani ci direct news nataalam mu yëkkati ay loxo mel ni nag ku jaaxle moo ngay yuuxu ne acharnement politique bu nguuri Sénégal nekkee ak moom moom Bougazelli di bàyyi faalu Macky Sall gi nag ak mbiru foobu yeey 24 heures na di ñu nettali kàddu yi waa mouvement ñoo lànk la ñu wax suñu naataangoo ci enquête bi ba ñu nekkee ca pencum ndaw réew ma waa PSD jant bi moom àdduna ñu jëmale ci mbir moom la ñu xamle rek moo ji ñi laale ak loolee rek ñu rëq seenu ndigg bu baax a baax Sud Quotidien ca la xëy di ut naka saafara ngir tappale gi mën a deñ foofee ca penc ma xalaate na ko wuute nañu lool ndax ku nekk ak na nga gisee ne war na koo mën a saafara El Hadji Malick Ndiaye bu Pastef ne li gën a am solo rek mooy ñu tënku ci règlement intérieur bi Déthié Faye bu fonk sa kàddu nee na naka priorité nañu ko réserver scrutin uninominal wal joojo Ndiaye ne faw rek daani gën a diis waa mouvement lank moom la ñu xalaat mooy mbir mi lu ji njaag rek Macky Sall mooy njaag wal fajiri yéene kaay mbir mi bu baax a baax te naan li ko jaaxal mooy coow li muy bari bari yépp naka Macky Sall amal na fa ak mitin gu rëy rëy waaye nag ñaari nit am nañ ci ay gaañu gaañu gaañu benn policier ñu dóor ko ci kanam El Amadou Ndaw nag ne gisuñu benn enveloppe boo xamante ni séddale nañ ko foofee te sax nag bu doon loolee am na nag lu jaadu la ndax ñoom itam dañoo war a xewlu xewlu gi ci élection locale yi tàmbali nag te boo moyul nag dina métti dëgg ci waa Benno Bokk Yaakaar ndax ñoom ñëpp nag ku nekk bëgg a doon candidat te sax nag loolee mën na yàq diggante waa PS ak waa APR ndax Ndeye Saly Diop Dieng nag moom jël na la force doole mbaam ci jamono jooje moom waa Benno Bokk Yaakaar ñag nañu yoonu Sophie Gladima foofee ca diwaanu Joal càccay bu réy réy nag ki ci a tas parti boobee di parti démocratique sénégalais ki mën di def ba ñëpp teg seenu bëggat naka mooy dëgg-dëgg xalif général des mourides ak Serigne Mountakha Bassirou ci màggalu ko ren ji naka ay coppite ak yeesal yu réy réy la ci sëriñ bi indi waaye naka teewul yenn ciy bàyyi foo naka ay pexe yu ne la ñuy tekk ngir rek a duufal seenu poste ci màggalu ko Serigne Touba googee loolee lépp naka suñu naataangoy l'observateur xëy nañu di ñu ko nettali di tàggat yaram El Hadji Diouf naka ci biir yéenekaay bi di stade nee na Aliou Cissé bu gañewul kan bi bu yeboo rek mu xam ne nañu abal te dem yoonam abal leen ma nopp bu baax a baax ma dey leen du yéeme yéeme benn soxna nag moo bojj paaka boroom këram ba noppi tëjlu ko ci kaso gi ñoo ko déggandoo jàngeen jëf